Thank you.

Non, mais c'est plus un examen parce que quoi qu'on puisse dire, il a quand même réussi euh, Zénith de Paris. Et comme vous l'ai dit, j'y étais la dernière fois à Paris. Et wax deug yalla lañ fa doon xaar ci ambiance spectacle Je ne que si ni en Europe il faut jouer si personne bi bu Sénégalais tu peux le multiplier par trois parce qu'il n'y a pas beaucoup de Sénégalais là-bas il n'y a que des Français ñi fa donc bu il a déjà réussi le pari donc lui il joue sans pression je l'ai vu tout à l'heure à Tigalem, euh, mais il est sans pression et je trouve que voilà c'est normal donc lui, warul ko euh, je je pense pas que war na mën a tax ñu ay euh, pression là ou pas tëgg ko war na ko tëgg est-ce que jot na ak le jot na lu jot la donc je trouve que ni c'est bien de le faire et de montrer aux gens aussi qu'il a le qu'il a un public un peu partout et puis loolu lañ nar a gis fii ci kanam alors pour yow lan moins nekk objectif tey ki nga xam ne mooy Sidy est-ce que pour Madame, fii voilà, wala mu def spectacle boo xam ne fi am. ah non c'est pas c'est pas que mu faites. xam nga wax naa ko les Zénith moo gën a moo gën a moo pression ci artiste parce que tu te déplaces avec benn orchestre boo xamante ne da nga fay dem mais fay fekk fii au moins tu as des amis à contacter yoo xamante ne mën nañ jóge Mbour mën nañ jóge Kaolack ay fans yoo xamante ne ils sont un peu partout mënuñu jënd billet avion dem Paris mais mën nañu jëw fay un taxi wala fay un njaga njaay anyway un bus ñëw ngir dooleel ko donc le moom mooy plus bi quoi mu fees mu ñàkk fees y aura du spectacle parce qu'il l'a déjà préparé et deux mois joué ou depuis deux mois je trouve que du coup seen la ci ni ne ko pas deux mois joué wul donc là je trouve que ni ça va être ça va être très très très chaud Inch'Allah. en tant qu'animateur surtout animateur de la jeunesse comment tu trouves la musique sénégalaise fi mu bah, ça va, hein, ça va, hein. quoi qu'on puisse dire. Nous, on écoute euh, quand même euh, toutes les musiques du monde donc euh, euh, on est des mélomanes dañuy déglu artistes yëpp mais on trouve que ni ñoom ñi ngi commencé euh, génn ci loo bu ñu parce qu'on voit bel et bien que ni ñu ngi bëgg mbalax mi dem ñu ngi bëgg mbalax mi ñu ngi imposer mais ba tey des na mais boo xoolee ci côté afrobeat bi da ngay gis ni artistes yep ñu ngi ci nekk au sommet actuellement ku ci génn tube rek gars yëpp koy bëgg et là ça montre et ça prouve véritablement que la musique sénégalaise mi ngi upgrade ci kaw. alors maintenant parlons de l'actualité parce que il faut que ñu wax le wàllu showbiz alors il dara a nañ ki nga xam ne ni sa xarit la euh, sa sœur la sa lépp la muy ki nga xam ne moom mooy Racky Aïdara nga daal di koy soutenir nga daal di soutenir ah, on va parle de ça c'est vrai voilà alors on koy soutenir bu baax a baax parce que Sénégal dans notre période boobu ngeen tolon euh, la loolu wax maanaam lii di xarit amatul xarit fu mu toon wóoratul surtout ba décès kii euh, Aziz Dabala amé du bëri amatul woon confiance ci seen xarit yéen ngeen ñëwaat dëggalaat lu mel alors situation yi na ngeen ko dundee woon elle c'est ma jumelle c'est ma vie en fait tu vois donc on a Racky c'est toute ma vie quoi que quoi qu'on puisse dire euh, xam nañ ñu ni ñun ñaan mi lañ depuis 2013 14 ba 2024 donc ça fait plus de 12 13 ans et voilà je trouve que nous ni loolu nekkatul sax ay affaire de xaritoo frère la ak sœur et euh, je lance un message à tous, les, euh, à, à tous qui me regardent pour leur dire véritablement que ça existe bel et bien, l'amitié entre garçons et filles. Et l'amitié quand même, boo xamante ni war na mën a euh, upgrade dem ci fu sore am na lu mën exister la il suffit juste ku ci nekk ci yéen ñaar xam lan la bëgg xam li mu li mu sekk ak moroomam et puis bëgg ko te yàlla tax et noonu la ñu àndee ba fii quoi te loolu lan la loolu laay àndee ak moom ba ba ba keroog yàlla di parce que c'est c'est pas c'est pas aujourd'hui une fille boo xamante ni ku may xool di ko bàyyi la sama xol la ne et puis

lan lay dëggal. <laughs> madame Gaye bi. waaw da ngeen jàpp ni moom mi ngi doog a dëggal yàgg day dëggal. <laughs> ah jaajëf jërëjëf di merci beaucoup. alors xam nga oto si xam nga oto si monsieur le maire. monsieur le maire. monsieur le maire. sëriñ bi nga xam ne kosi bu mu laaleew. salaamaaleykum. Abdoulaye Kane la. Abdoulaye Kane. maa ngi sa délégation ñëw pour soutenir nga xam ne moom moo nekk ak Sidi Diop waaw dañu ñëwoon tey rek macha allah man maa ngi tudd Abdoulaye Kane nekk le directeur de cabinet du ministre maire Issakha Diop le maire de la commune de Pikine Est ñëwoon tey pour soutenir suñu xarit suñu camarade de Sidi Diop ànd ak une forte délégation pour représenter le maire de la commune loolu la woon. da ngay

loolu moo tax ñu dañ jéem a déplacé wu ànd ak euh, délégation bi ministre Sakho Diop ñëw jéem ko dooleel waaw moo taxoon tey gars yi ñu ko si. d'accord nga def seen délégation rek. waaye moom moom moom doole quoi. booy bàyyi dama wax fecc ko monsieur le maire kenn ko fecc loo. non fecc fan. fecc mais am na benn son studio bu la gën a neex quand même. waaw <laughs> mbëggeel mbëggeel mbëggeel si Diop. mbëggeel mbëggeel sama mbëggeel neex na. a neex. mais am nga benn son bu gën a neex. non a neex. son yëpp a mais Layla Layla daa ngi nii kontaan papa xew leen la c'est normal ñu def nii. ñu ngi leen def seen oto si lii. waaw vraiment suñu papa bu xewlee moom. képp ku soxla woon waa Siri famille bi waaw. kay leen Siri famille. Siri famille Siri

啊。